kii jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte àndaatak ak jàkkaarloo bi am euh, yéene euh, waxtaane la xew ca Guinée ndax euh, ay dëkkandoo lañ te dëkkandoo mbokk la lu leen wokk war ñu mën a xuri rawatina nag bu ñu amee ñoom 2 millions ci ay doomi aadama yuy doomu Guinée di yeewoo fii ci senegal kon élection ba ak ni mu mujjee jamono ji Euh, ma ci dalal waa kër Alpha Condé ni ki it euh, Cellou Dalein Diallo ma commencé ci Abdoul Karim Silla moom mooy secrétaire général UFDG bu euh, Sénégal banxaaf soo fi ñu ngi lay nuyu Silla ok maa ngi lay fay monsieur mm-hmm. Pape mm-hmm. du moins Abdoul Karim Silla je suis le secrétaire au au de l'ordre du bureau fédéral Sénégal ok alors beneen côté bi ñu ngi am Frayira Condé moom mi ngi bànqaasoo ci RPG Arc-en-Ciel euh, mooy euh, parti bi nga xam ni moom la Alpha Condé jiite nga sant Condé it di doom baayam ñu lay nuyu. merci beaucoup maa ngi leen di nuyu di ñu nekk ci plateau bi ñëpp. Euh, di présenté wu waat man maay Frayera Condé mm. secrétaire général bu RPG arc section Sénégal Gambie Mauritanie ak Cap-Vert. Mm-hmm. loolu yëpp nga boole banqaasoo ko boole banqaasoo mhm. kanam gi xaw na leer da mel ni ku kontaan xëy na bu ñu duggee ci résultat yi ñoo xam li tax dama gagné moo tax da nga gagné waaw dégg léegi mu leer <laughs> alors ñuy euh, feggoo ci waxtaan wi ak euh, CIRESI si benn think tank la yore mun nañ jàpp ni société civile la ñoom ñu ngi euh, tuddu Africa Worldwide Group Siré mhm. waaw sëñ Der ñu ngi lay dalal jàmm ci jàkkaarloo waaw merci beaucoup merci maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu ñëpp ko Barkaba, journaliste, analyste politique, euh, il bourlingue également pour Futur Média fu tàng moom lañ fay yóbbu booy jak saaw la c'est normal <laughs> booy caaro yi <laughs> ci dañ naan euh, ragal du jéggi raay mais yow da ngay jéggi frontière <laughs> Barka ñi ngi lay nuyu. maa lay fay ba Abdoulaye fii balaa ñu dugg ci sujet bi comme na ngay wax loolu euh, prochaine mission il faut que Bouba Ndour dem <laughs> li ngeen bëgg nii dafa yomb. no fii di analyser ay par vendredi prochaine mission yi moom moo def sur le terrain. <laughs> ce sera avec plaisir mook Malal d'ailleurs je vais proposer mu ànd ak euh, Fou Malal. Ah, Fou Malal ah Fou ngay àndal. Fou Malal non xam nga du ànd ak Fou Malal. Hmm. laajal bi ñu demee fële dëkk ba. <laughs> waa waa kii waa Yann Amar daan nañu jéem a kii. Congo jàpp leen Congo. Congo moo tax soo seet la sama gars yi ci la ñuy toog rek di sànni mais pour ñu jël avion dem. Congo dégg naa dañu rëcc. kan moo leen fa génne. ah ñoom xam nañu. Malade xam na Fou Malade xam na. Fou Malade. ah mais mais man. Serigne mais man xam nga man loo ma jaaxal. am benn léegi nii bi ngay naan Fou dafa lu dem sama xel. Eh, eh, mais Malade yàlla na nga fi yàlla na nga. dund ba dund sàppali la nga waaj nga nga waaxu dem àjjana comme ni ñu koy ah, waxee. mais Malade est-ce que yow intégré nga bés boo amee ay quatre-vingt-dix ans. yor sa kurus xam nga te yow da ngay rétrécir um pa bu ndaw nga nar a yor sa kurus mel ni Modou Gueye sama weeru xarit yéen ñaar a nar a tolloo <laughs> ngeen war a dem jàpp ah. romb romb sa ay doomu set ñu naan la Pape Fou Malade <laughs> est-ce nga loolu mais yàgg la man sama tànta sama tànta ba mum pirwa la waroon wooye ba mum pirwa benn pa njaago bu doon ñaw baas suñu koñ pirwa pirwa pa pa baas dafa paa bi presque ay nii la war a toll. paa <laughs> la limite. te man xam naa après man nii laay toll. xam naa mala mala xam naa na ma yàlla baal yàlla na yéex cimetière xale yi sax mën nañ leen ko yóbbu. <laughs> bu ma sériewul quoi <laughs> alors alors bar barka baaj bu ñu leen présenté sama sama gagné leen wax euh, Guinée Guinée la ñuy dem non bu ma sériewul quoi alors qu'on parle d'un sujet très sérieux xoolal non no mais mais franchement fi mu duggee honnêtement ñii nekk seen di seetaan yor 90 ans romb ñu naan la pas fou malade après yàlla na yéex. ñu imaginer feuilles yi tàggee boobu. ay ay ay ay ngaaka blende. ah, ah ngaaka blende. ay ñagas ni nga ko ay paa ngaaka blende. ni nga ko waxee yàlla na yéex yàlla na doon dans cent ans mais ay ay rapport ñu leen xala paa ngaaka blende. nit dof paa kanabaas. ay paa nit dof paa nit dof. xam nga yooyu dañ ko war a intégré de. mais boo ngeen commencé anticiper. di changer seen tur yi. ah <laughs> merci jërëjëf mais loolu euh, naka rapport yi xalaat. <laughs> incroyable incroyable alors man euh, Barka bi ma bi ma yeewu nga yónnee ma message ma yëg ni yaa ngi fi j'étais surpris du ma ko nëbb envoyé spécial boo xam ni xaaru leen égrener résultat yi non c'est vrai <laughs> ne le dis pas plaisanter je suis sérieux le matin j'ai vu un message il m'a dit je suis à Dakar ah non <laughs> alhamdulilah rabbil alamin ah non je ne man mi ko posé nii xam naa ko. <laughs> mission bi jeexul mais déggoo ko. mission bi jeexul waaw léegi wuyu ma c'est barka lan laa la wax ma ne la mbaa jàmm su ma wax xamoon nuñ koy waxee ci pulaar yi du waxee noonu ko jàmm alors mbaa mbaa leen fa résultat on commence en avoir tu es à Dakar <laughs> Euh, jàmm euh, yeewul Guinée euh, hmm? der et effectivement Bouba Bouba a raison même si on en rigole pour déstresser un peu parce hmm. que ñëpp on sait que c'est un sujet extrêmement sérieux hmm. et adduna bi yëpp ñu ngi bàyyi si xel lu xew Guinée pour pour résumer justement ñun suñu demee ba xam ne mission bi jeexul ñu daal di ñibbisi c'est pour prendre la pleine mesure de ce qui se passe actuellement en Conakry xam nga man bi may dem mission dama woote foofu Euh, jour bu ñu war a décoller ñi ma xam ñëpp dañ la mu bul jël avion. Mhm. situation bi nekk fii nii boobu on venait de parler de l' attaque du camp de Kindia. Mhm. avec la mort du colonel Condé ñu ne Kaloum dañ ko tëj kenn du dugg kenn du génn pour faire le boulot da dem rek wakilu xam ne suñu borom moom moo moo la yor du leneen ah du. du affaire de Boy Jacksa ou du affaire de fit euh, du la c'est le métier qui le c'est le métier qui le demande da ngay témoigner et puis euh, j'ai toujours pensé que toog ci plateau télévision ngay analyser ñu naan la plus ou moins spécialiste nga ay mbir fekk tu n'es jamais sur le terrain c'est pas crédible. Mm-hmm. et que TFM dafa am euh, sas sas la boo xam ne Sénégal bi yëpp reconnaître nañu ko. quand même ça fait depuis la création de TFM lépp lu xew ci sous-région bi dañ fexe am ku dem euh, malgré les risques parce que contrat moral la bu ñu am ak euh, public bi hmm. donc du am am lu fit du gëriyee lu du dara dañuy dem rek te euh, dénk suñu bopp borom bi di ko dollee ko ay ñaan parce que ay doomu jullit lañ hmm. voilà avec tous les risques possibles pour Conakry c'était la même chose donc on est parti déjà en situation de danger parce que Kaloum dañ ko dañ ko tëjoon gars yi ragaloon xamuñu ndax coup d'état la règlement de compte entre militaires et cetera yàlla def bi ñu ñëwee euh, on a trouvé la tension mais jot nañ def suñu liggéey ci jàmm euh, jot nañ dem ci état major politique yi dem nañ sax ci quartier yu gën a compliqué yi yoo xam ne dinañ ci ñëwaat ci kanam mooy les quartiers de lax l'axe euh, bi ñu toogee mission dangay ngay da ngay évaluer le risque ngay laajte di xool du du bal bu njëkk tàkk rek nga ne da ngay takk sa bagage di nga xool fan ngay dëkk fan nga war a dem mhm. en calculant bi ñu demee ba toog ba xool situation bi nu mu mel nu dëkk bi di tàkkee moi je devais rentrer le vendredi c'était la fin officielle de ma mission non man man non mardi laa war waroon ñibbisi mhm. man maa prolongé sama mission ok man man maa woo tele bi ne leen dañu prolongé mission bi. on envoyé pour cinq jours. Mhm. donc xam naa su doon buuba la su defee <laughs> vingt quatre heures fekk ñibbisi na. day bref waaw après comme on devait rentrer le vendredi. après évaluation du risque on s'est dit que nañu nañu ñibbisi ba pare on avait des problèmes euh, avec les tests Covid. fekk mhm. euh, le gouvernement du Sénégal par la voix de l'autorité ministre Diouf Sarr que je remercie au passage su doon woon Abdoulaye Diouf Sarr du ñu ñibbisi. il a été extrêmement diligent. parce qu'on est rentré dans des conditions compliquées moom moo ñu defal autorisation d'embarquer avec Air Sénégal su ko bindul woon instant yi ba léegi même suñu bëggee ñibbisi duñu ñibbisi donc yàlla def euh, man ak samay naataango yu fi nekkoon ñu ñu ñibbisi donc pour loolu c'était juste pour euh, préciser condition voyage ah, bi euh, contexte bi bi mais ñëwaat ci digg bi Conakry jàmm yow fa euh, la situation est extrêmement grave et man su ma doon résumer dama naan le pays est à de la guerre et bien mes mots te euh, euh, Guinée dafa nekk dëkk boo xam ne juróom-benn dëkk ñoo ko wër si juróom-benn dëkk yu wër Guinée yi ñëpp am nañ guerre ba mu des Sénégal la la Guinée frontalière de la Sierra Leone du Libéria de la Côte d'Ivoire de la Guinée-Bissau et du Mali. Mm-hmm. juróomi dëkk yooyu yëpp am nañ guerre pour dire que lu fa xew du caaxaan. et que euh, si la Guinée explose mais euh, conséquences yi c'est c'est c'est c'est extraordinaire. pour la sous-région yëpp oui. c'est tellement grave que euh, man ñu ma xam dans les deux camps dans aussi mm. bien camp wu Alpha Condé que camp wu Cellou Dalein Diallo des yoo xam ne d'habitude ils a xam nga depuis presque dix ans ñu ngi vivre sous tension ah day am tout le temps ay période de d'accalmie c'est-à-dire que. Euh, dañ dem dañ ko dëkkaale les ay morts ay répression dañuy dem ba intégrer risque bi mais pour la première fois laa gis ñoo xam ne ñu mënaan saway euh, lii xamatuñu lan la wala fu ñu jëm walla tout peut arriver y manque de lisibilité sur le futur du pays fan la dëkk bi jëm amul kenn koo xam ne su waxee ak akulaay taalaam xam na tey nan la Guinée di di mujjee lépp mun na fa am kenn ñaanu ko yàlla nag parce que non seulement c'est des voisins mais euh, ay africains kenn mënul souhaiter Guinée exploser donc et environnement est tellement instable et guerre civile yooyu ma la doon wax ay Libéria ak euh, Sierra Leone c' est des guerres yoo xam ne dafa laaloon Guinée ba nga xam ne les Guinéens ont été obligés de combattre euh, en forêt vers euh, Gékédou Macenta coré guerre bi dafa déborder woon seen frontière mhm. ce qui veut dire que tey suba su tàkkaatee le mêmes conditions dafay amaat te on a vu que Libéria Sierra Leone ça fait vingt peut léegi presque vingt ans mhm. bu guerre bi demee mais le pays traîne des séquelles c'est des mhm. pays qui ont du mal à se et c'est les guerres civiles les plus atroces or tous les ingrédients yu taaloon dëkk yooyu noonu sont réunis à Conakry man sama gis-gis mhm. c'est-à-dire conflit politique boo xam ne immédiatement conflit ethnique moom moo ci mën a euh, tegu moo tax les gens ont peur et effectivement et il y a un nombre élevé de morts moor yi dafa dafa dafa bëri une vraie boucherie Euh, entre ñi dëkk biir Kaloum nga xam ne plus pour le pour le moment ils sont plus ou moins protégés xam nga mënoon expliquer configuration Conakry. Mhm. li may wax nii peut-être am na ñu nga xam ne ñu ngi toog seen kër di saan mais naan kii est-ce que li muy wax xam na ko parce que ñun ñu ngi Conakry mais y a <coughs> effectivement am na partie Conakry yoo xam ne soo fa nekkee mais dafa mel ni yaa ngi point e. mm. doo dégg dara mais soo génnee foofu daal dem daal les quartiers nord c'est là ça qu'on appelle c'est le cœur du problème euh, actuellement de la Guinée l'axe c'est Bambeto c'est Kossa c'est Hamdalay c'est Wandindra c'est Kabele c'est des c'est des quartiers yoo xam ne ay immigrés yu jóge woon ci dëkk euh, ci dëkk taax yi ñoom mm-hmm. euh, kaw yi ñoo ñëwoon dëkk foofu c'est une concentration de misère mm-hmm. de quartiers pauvres mm-hmm. am nañu ci tane euh, tout n'est pas mais ñooñu dans l'hyper majorité ñoom ñooy les partisans de de Cellou Dalein Diallo et depuis qu'Alpha Condé a pris le pouvoir les jeunes de laks là continue de payer un prix très cher chaque fois qu'il y eu des problèmes ñoom ñooy ñoom ñooy dee et ñoom ak policiers yi xeex bu métti la bi may mujjee yëg euh, dugg dans dans l'axe y avait déjà tous les postes avancés yu nekkoon dans l'axe booy dañ ko taal c'est-à-dire comme genre commissariat la yu ñu fa teg booy dañ ko taal tey dafa am benn train buy jaar ci axe bi ils ont attaqué un track boo xam ne moom moo war indi boxe le président de l'association euh, des commerçants la plus grande association il a fait un appel pour ñu boycotter euh, tëj marché yi loolu su yàggee dans deux semaines wala euh, trois semaines kenn dootul lekk euh, mm. Conakry donc la situation est extrêmement grave Cellou Dalein Diallo depuis bi mu autoproclamé wu président il peut pas sortir de chez lui du génn du dugg et gisuma actuellement nii lan moo mun a fay taal bi parce que dañ ko abordé euh, rôle CEDEAO ci peut dans les dans les mhm. relances effectivement maa ngi doog ko gis tey communauté internationale bi commencé xaw a prendre en compte la mesure du danger parce que le sous-secrétaire d'État adjoint américain a lancé euh, un communiqué pour condamner les violences Euh, Jerry Rawlings ancien président du Ghana dont la voix compte euh, condamné na ko la procureure de la CPI Fatou souda mu ngi menacé les forces de sécurité yi nga xam ne dañuy impliqué ci ay tueries il y aura des pour la CPI euh, en euh, Europe am na ay eurodéputés yoo xam ne ils commencent à bouger Mélenchon a fait une sortie pour mettre la pression sur sur Macron pour dire que ce qui se passe en Guinée mais ñëpp la wala interpellé il s'agit pas d'une histoire de Alpha Condé ou de Cellou Dalein Diallo ça dépasse leur personne c'est l'avenir de la sous-région qui est en jeu et man euh, yàgg naa gis ay musuma gis lu gën a prévisible ni xam nga am na ay affaire yoo xam ne comme le le printemps arabe mu bette ñëpp la bett mhm. les meilleures agences de renseignement du monde Euh, ceux qui font de la prospective les analystes ku la wax ne et mu xabaraat aussi service renseignement. ku la wax ne mënoon na ko prévoir day wax lu ko neex. Ah, le geste de Bouazizi la taal boppam après ça fait tomber autant de régimes arabes. Euh, de manière directe ou indirecte kenn mënu ko woon prévoir mais Guinée ça fait dix ans que ceux qui suivent ça xam nañ ne dafay exploser loolu moo ci dramatique en fait. Mm -hmm. on les gens aller droit dans le mur. et vers oui. la guerre civile. Euh, dafa mel ni guerre buy klax dafa klaxonné depuis depuis depuis dix ans ça klaxonne. mais maintenant mu ngi jël ampleur boo xam ne kenn xamul fu mu fu mu jëm y a des villes de l'intérieur yoo xam ne comme Mamou nga xam ne c'est un carrefour stratégique booy dañ ko bare dara du dugg dara du génn et am ay jeunes yoo xam ne dañu ne ñoom euh, dee moo leen gënal li ñuy dundee donc c'est un problème extrêmement sérieux mm-hmm. un problème politique un problème qui pourrait avoir des problèmes euh, à relance communautaire euh, lu mu laal c'est un problème explosif donc euh, ñun alerte lañ mën. Mhm. li may wax nii euh, voyage yooyu ñuy wax lenn la lay njëkk jàngal mooy humilité loo toog di wax am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen salon di naan seen café ñoo la ko gën a xam. nous on n'est pas des experts de quoi que ce soit on n'est que des petits témoins da ngay dem dem reportage tu na pas toutes les données tu n'as pas le monopole de de la vérité. Mhm. mais man lu ma gis Guinée. Mhm. yem na ma. alors Barka dinañ euh, xóotal ni nga wax rôle CEDEAO ban taxawaay la ci Sénégal war a am yooyu yëpp dinañ ci dikk euh, ci biir euh, waxtaan wi mais jamono ji tamit li ci bees mooy bi ñuy toog commencé na ay résultats commencé na fës xam nga maa ngi lay tooñ di la ko wax ne la résultat génnagul parce que bi nga may yëgal ni yegg si nga ci suba effectivement amaguñu woon yenn résultats yi mais ci diggante bi 37 sur 38 gox goxaan génn nañ ci li ma mujj dégg balaa may toog. on donne une avance de un million deux cent mille voix au président sortant Alpha Condé seen résultat yooyu ma jublu ci yow frère Condé yow mi nga xam ni yaa fi toogal euh, Alpha fan ngeen ko teg. Euh, est-ce que mën naa ñëw tuuti en arrière ci li Mbarka. Euh, ñu organiser débat bi loolu xoolal dinañ ci yegg si waat. moom daf ñu brosseloo. situation générale waaw daf ñu mais xam nga lépp chiffres yi ñoo indi problème bi frère. d'accord may may ma latitude may ma latitude ma organiser débat bi dinañ xóotal yegg si incha allah. Ah, doon ko tas ah est-ce que parole bi dina ma ñëw pour ma mën a répondre ci li mu wax je te promets ci li mu wax parce que je te promets ah tu me promets je te promets sûr ah man c'est ça. sinon ma ma wala feera yooyu dem ci wala ma waat waata ci des. Oh, ah waaw boo waatee ma xam ne danga ma jox parole bi ma dem ci li Mbarka <laughs> wax. ayca bismillah ñu ñëw ci résultat yi. après après on va on va ñu ñëw ci résultat yi man dama ci xuusagum xam nga. Hmm. résultat yi man mën a gum mu cee xuus. lan nga ci yore am na yoo ci yore. Séné bi am na je suis connecté. Ah. maa ngi jokkoo ak ñoom téléphone. oui man kañ xam naa ne am na loo ci xam mais maa ci xam dara war nga ci xam du ma man du ma waxagum loo xam ne ni Séné bi rek moo am droit wax ko. lépp lu ma ci wax rek. ay fen lay doon. mais dégg nga quand xibaar bi ma la wax. qu'on vous donne. sur le total des voix déjà. trois millions et quelques. et donc que rawee ngeen. c'est lu raw nañ raw nañ. un million de voix plus d'un million. man xam naa ni raw nañ leen mais mënu ma joxe ay chiffres. Mhm. parce que lu tax du ma joxe ay chiffres. oui bi donc moo habilité à donner des résultats. Mhm. et CENI bi y a sept personnes de la mouvance sept personnes de l'opposition et sept personnes de la société civile. Mhm. et vice-président bi il est de l'UFDG. mooy vice-président au CENI bi. kenn mënul jël décision foofu te ñooñu joxewuñu ay résultat yi fiable man mënu ma ko cee wax. parce que du yoon nga toog fii di joxe. ñun niñ ko bañee seetlu waxee ko joxe déclaré ni s'autoproclamé vainqueur ñun tamit amuñu droit toog ci télévision di joxe ay chiffres. mais seeni boobu tamit est-ce que jox nañ ko bopp bu baax Guinée bu ñu gisee coow yi am ak ñaar ci xibaar. Mhm. nga dëggal ñu wala nga ci liñ ci xam dafa am ñaar ñoo xam ni dañ ci génn ne ni ñuy compter affaire bi jàpp nañ ne du yoon. Ah, mën naa cee hmm. tontu justement moo tax ma laaj loolu moom mën naa cee tontu. loolu oui. bi jox nañ ko bopp kenn roccewu ko xam lu tax. Hmm. avant ñuy dem ci élection yi ak seetlu ni ñu ko xamee. seetlu ni ñu ko xamee. Hmm. seen yi passé yëpp da leen doon. récuser bañ. waaw bañ. Ah. mais bi musu koo bañ musu koo bañ musu koo bañ xam kañ la commencé bañ euh, kii. bi mu s'autoproclamé vainqueur lay soog a commencé attaquer seen bi. Hmm. pourquoi ñun on se pose cette question. Hmm. seen bi dañoo ce sont des républicains ñoo xam ne seen ñun xamuñu leen sax ñi ngi naan. président au Séné bi su suñu militant la bañ koy nommee président au Séné ñoom ñëpp dañ cee d'accord parce que ñun kooku on le connaît même pas vice président bi ñu jox ko UFDG ñoom ñooy tëral ñoom ñooy buum ñoom ñooy buum mi léegi nag résultat yi bu commencé génn seetlu taxaw di attaquer Séné bi ak ñi wax ni am nañu deux démissions ñu démissionné ñooñu c'est loolu seen plan la si opposition bi lañu bokk bu la neexee ñu démissionner pour géem a entacher bi hmm. mais ça ne marche pas <coughs> ça ne marche pas avec nous. ñun xam nañu yoon. Hmm. bala hmm. xam ngeen yoon waaw. xam nañu yoon. xam nañu fu ñu jëm. élection yi seen bi mooy joxe résultat yi ndax seen bi avertir na leen ne leen résultat yi génn fii kenn amul droit publier résultat yi lu dul seen bi parce que toutes les parties sont représentées. kon boog bàyyi leen nañ leen bàyyi ñu seen liggéey mais seetlu bu fekkee ne ni seni bi baaxul woon. si seetlu avant muy déclarer candidature am. lay attaqué seni boobu. mais musu ko attaqué musu ko attaqué jusqu'au le 18 musu ko attaqué le 19 la commencé attaqué seni bi. parce que il s'est autoproclamé vainqueur léegi nag il faut que mu entaché lépp <coughs> mais mënul nekk ça ne peut pas marcher. balaa may dem ci Silla mi fi toogal seetlu ma laaj la tamit rek <coughs> euh, est-ce que du troisième mandat tamit moo indi coow bi yëpp. Euh, troisième mandat kooku jàll na. Hmm. xas nañ ba dem. ci ci ci xob yi. ci xob yi. donc dootul troisième mandat. Hmm. luñ luñ ci waxati rek. Hmm. ñu ngi delluwaat ginnaaw ñu ngi reculer nañ leen avancer rek parce que ça va ça va revenir ça va revenir toujours débat comme comme débat day a xóotal wax bi. ayca voilà ayca alors alors Sylla. dégg nga li mu wax nee na CENI moo habilité eh, joxe ay résultat donc contestation déjà sellu ni mu teelee wax tamit moo gagné. est-ce que est-ce que du erreur jékki-jékki ñu voté tey ca ngoon sa balaa dara di xew nga ni maa gagné. <coughs> voilà merci beaucoup euh, xam nga fi ma mën a commencé mooy euh, sama président El Hadj Cellou Dalein Diallo li mu autoproclamé c'est très normal mu autoproclamé parce que déjà boo xoolee élection en 2010. Hmm. foofu lay commencé. Euh, Alpha Condé avait 18 pour cent et lu président Cellou Dalein Diallo avait 44 pour cent. boobu ba léegi je pense que boo xoolee am na différence lu bëri mais en ce moment kii moo si nekkoon euh, Sékouba Konaté moo nekkoon comme président à l'époque le général waaw le général Sékouba Konaté mm-hmm. ñu fexe ba mm-hmm. dëpp carte gi dëpp kees gi ne ko nañ dem presque toog nañ presque de quatre à cinq mois pour préparer le deuxième tour bi ñu préparer dem deuxième tour ñu def li ñuy def ñu ne Alpha Condé a gagné peuple yi nga xamante ni ñoom ñoo voté pour Cellou Dalein jàlloo peuple yi ne ne duñ ko d'accord Cellou dafa bëgg Guinée yërëm waa Guinée xam ni Guinée situation bi mu nekk pays bu neex defaral la mais yàlla moyaguñu njiit bu baax bi mën a développer bi mën a defar Guinée Cellou ne ko non man je laisse tomber tout parce que du ma jaar si cadavre si néew yi pour dem dugg ci palais ñu bëri mere ko ba suñu nit ñi nga xamante ni ñoom dañoo bàyyi. Hmm. mën naa wax sax benn tour comme boo xoolee tey jii nii eh, ki nga xamante ni moo nekkoon na si bureau exécutif bi mooy Baawuri ci contexte boobu moo tax Baawuri gën a bàyyi seetlu parce que dafa ne seetlu amul fit en mille quinze 2015 ñëw mu defaat la même chose mais en 2010 bi ñu defee élection ba pare bi ñu compté xob yi ba pare la kii euh, Sékouba euh, Alpha Condé moo jëkk a jël autoproclamé boppam mu ni gagné na. Parce que c'était en 2010, il était opposant, le président Cellou était opposant. Donc ñun waxuñu cette fois-ci maintenant ñun autoproclamé nañu li tax ñu autoproclamé xam nga xam nañu dëppkat kees la à chaque fois day dëpp kees te dafa muus dafa yeew léegi comme xam nañ loolu le président Cellou Dalein a acheté a acheté presque 32 comme li mu ko waxee tablette bi mu ko defee créer benn logiciel boo xamante ni nekkul sax Guinée nekkul Sénégal fii France la nekk français ko yore dafay les permettre boo leen defee vote ba pare ba ñu def dépouillement mën nga koo photo mu rejeté ko direct day dem direct ci bureau national donc base donnée boobu la ñu am te man am naa chiffres yi ma yore mën naa ko ko wax bu fekkee ne moom nangul wax man dama dama gëm li ma wax te li may wax dëgg lay doon am na urnes yoo xamante ni comme Farana su ma jëlee tey jii nii Farana. taux mm. participation bi c' était de cent cent virgule pour cent. cent virgule quatorze pour cent. mais yooyu taux de participation. voilà mais loo loolu moom. loolu moom taux de séparation du moins taux de participation oui. loolu. loolu gisuñu ko. Mm. benn waxuñu foofu noonu. boo xoolee Matam comme Séni dañoo casser foofu dix huit bureaux de vote. nanguñu wax 18 bureau de vote yi nii la demee nii la demee su ma ñëwee matutu. ay bureau fictif ay bureau fictif ay bureau fictif xam nga président eh, Alpha Condé Alpha Condé nit la koo xamante ni buggul Guinée et puis bëggul jàmm yàgg na yàgg nañ ko wax te yàgg nañ ko remarqué le fait président Lansana Conté mos nañu wax ne leen Guinéen dama leen di ñaan rek. fexe leen bu leen jox Guinée ay nit yi nga xamante ni dëkkuñu fi tooguñu fi élection moo leen fi indi bu élection pare dem nañ seen yoon dinañ jaay réew mi loolu mooy président Alpha Condé. Hmm. résultat bi ñuy wax nii ñu ne moom moo gagné c' est archi faux est pas vrai ñii amuñu dara c' est bien vrai que ñun gagné nuñ hmm. on a eu cinquante trois virgule quatre trente quatre pour cent. Hmm. moom la ñu am. 53 virgule 34 selon yenn chiffre yi ngeen am selon yenn chiffre bi ñu am parce que mmh. chiffre bi ñu am base de données la am. te mmh. c'est très clair. yor naa lépp. léegi CENI bi xam nga nee nañ am na ñaari opposition ñoo xam ni génn nañ ci. mu mmh. ngi doon wax ni mu composé mais ñoom yéen seen CENI bu ñu ko méngaleeg suñu Sénat defe naa dañuy juum. ndax ni muy fonctionner du benn wala. non mais c'est vrai. xam nga bi Sénégal am bu ñu ko méngaleeg seen bos dañuy juum. du benn non du benn la du benn la. non man maa man mun maa mun maa comprendre ah. que parce que benn la xam nga lu tax dinaa la joxaat xam nga lu tax hmm. Sénégal fii ñoom Sénégal mën naa wax ni peut-être d'une part droit la ñuy wax hmm. te dañoo respecter droit mais Guinée ñi c'est des gens corrompus l'administration de la Guinée la majeure partie c'est des corrompus kooku man maa ko wax ti et j'assume donc am na loo xamante ni ils sont capables dëpp kees gi pour leur bien cest dire pour leur poche leur intérêt personnel. léegi yéen PV yi ngeen yor tamit. waaw ah. mënu leen ko confronter biy dem euh, ci CENI ba commission ba. seen PV yi ngeen yor ne mooy yu baax yi. mënu mhm. leen dem ci yoon. ak ña leen toogal ci seni bi wala ça ne se passe pas comme ça moo xaw ma moo tax damay laaj. mais xam nga. loolu seen ay PV seen représentant yoru ñu PV bu ñëwee indee ne 1000 la ñu am fekk 100 la ñu am ngeen génne seen PV ne leen non amu leen 1000 100 ngeen am PV baa ngi nii loolu amu fa. wala xam nga xam nga li tax ñuy tiit parce que ñoom am nañu PV bi ñu yore ñoom am nañ ko. Hmm. parce que chaque bureau de vote boo defee ñun on avait déployé presque 32000. 32000 personnes yoo xamante ni dafay am kuy kuy bu fekkee ni kii suppléant y aura un suppléant ak koo xamante ni moo titulaire bi. bu fekkee ni titulaire bi présenté wul mais suppléant mën nañu remplacer ko. loolu de ce fait bu fekkente ni def nañ dépouillement ba pare. xam nga bureau de vote chaque représentant dafay signer. président du bureau de vote dafay signer. bu signé nañu rapport boobu la ñuy jël remonté ko kon ñii bu ñu nii ñii amuñu ñoom amuñu ay PV maanaam ñoom amuñu résultat yu clair mais dañuy wax lu leen neex. kooku c'est pas possible mun nekk parce que mënumaa comprendre ñun li ñu am ñoom seen membre seen responsable signé nañ ci ba président du bureau de vote signé na. Mhm. ba pare ñoom ñuy wax ni ñun résultat bu ñuy programmé mais gagné ñu ko c'est pas mhm. possible c'est archi faux. Mhm. alors Charles. très rapidement le relan ci discours bi et on sait que le fond du problème bi mu koy waxee naan Conté ne woon na bu leen jox dëkk bi nangam sangam y a un fondement quand même problème là ethnique. pour ci problème bi il faut oser le dire. d'emblée waaw waaw euh, waaw bisimilah euh, di ma may ma nuyoo sumay suñuy gars yi parce que fii dama fi am rakk. pour qui j'ai un énorme respect. beaucoup d'affection dafa am loo xamante ni dañ ko bokk. doon suma rakk bu baax bu barka. Condé euh, moom du tey defe naa ak koo xamante ne si. Oui, on a un passé commun boo xamante ne euh, il y a vingt ans je pense de cela bu muy commencé euh, daa woon defe naa si ñun la woon si waa waa l'événement du soir mais balaa may tàmbale rek nga may ma il y a des Sénégalais anonymes qui ont beaucoup apprécié le travail du bureau de passeports pourquoi dañ ma woo pour wax ma wax ko télé ne leen dañu dem bureau passeport ñu ñëw fa la qualité de l'accueil réception moins de quarante minutes nga am say ñu jox le rendez-vous nga liggéey ñu ne ma vraiment faaw nga wax comment nos policiers au bureau des passeports sont des gens de qualité des professionnels et efficaces ce sont des sénégalais anonymes man dew ma fa donc ne bu defee tam lu baax jaar yoon da koy wax ma nekk nag seen porte-voix rek di féliciter en leur nom en tout cas ce que fait le bureau des passeports et par-delà tout naturellement toute notre police et notre gendarmerie nationale lu may njëkk a constaté il y a des morts en Guinée ñoom ñaar kii moom si waa Alpha Condé mhm. kii nekk Dalin jaalewuñu sax famille des gens sont morts des familles sont déplorées et voilà deux politiques voilà le drame de toute la Guinée xëccoo nguur nga ce qui se passe en Guinée est la faute exclusive totale perpétrée travaillé, façonné par la CEDEAO, qui est totalement responsable de ce qui se passe. Il se passe dans notre, sous, dans zone sous-régionale tout ce qu'il faut, toutes les conditions sont nécessaires pour gagner Barla. Toutes les conditions sont nécessaires pour une explosion. Nous une CDAO des peuples, on a une CDAO des présidents, qui font des constitutions luñ si bëgg dama koy wax en français parce que tey les Guinéens nous suivent ici aussi dafa am loo xamante ne xëy na duñ ko def par prétention mais les Guinéens nous suivent et il va falloir que le français sur cette question soit très présent afin d'aider nos frères guinéens parce que le sang arrête de, de, de couler et que la CEDEAO prenne ses responsabilités vous parlez de Condé mais c'est quoi ces histoires d'un président de la République qui taille sur mesure une co un truc à 82 ans pour être en ça encore ça mais fiche de la République ce gars ah non faut faut pas qualifier mon président il se fiche de le président Alpha Condé. il faut le respecter je ne permets à personne de le dénigrer. je ne le permets pas mayuma la nga dépasser le président Alpha Condé. Condé mesure tes paroles mesure tant que maa ngi fii le président Alpha Condé kenn du ko traité d'un traite ou bien d'un dictateur ou bien d'un qui je n'accepte pas. Condé, le tueur c'est Cellou Dalein. et puis je vais démontrer ça. comment il est le tueur d'accord d'accord Condé mais xam nga lu mu lay ñaanal. Ah, pour débat bi neex non non je suis d'accord il faut pas que ñu traité ko je ne suis pas d'accord. Condé Condé Condé nañ dégg dégloonte yow yàgg nga Sénégal oui ma oui ma d'accord le président Alpha Condé mu di ko traité comme ça. yàgg nga Sénégal oui ma yàgg ñaar bu ngeen doxee. mën naa leen tegal yéen ñaar ngeen dox mais Condé s'il te plaît déglu ma waaw mu bàyyi la ci ginnaaw. Condé s'il te plaît. Condé déglu ma je connais mon président. waaw mais d'accord mm. Condé ah, déglu ma. xam nga yow yaa ma ni man waxoo ma sax xam naa ni yàgg nga Sénégal bu baax de yàgg nga seetaan jàkkaarloo. xam nga ni fii waaw wuy ma xam nga ni fii. mais du ma ko bàyyi non non démocratie. non wuy ma bàyyi mu traité sama président d'un vieillard. non je suis may ma ma yeggali. mais na marque de fabrique. émission bi ak bi. may ma ko kenn nag ci plateau bi dictateur ou bien d'un vieillard. boo kon di ñibbi avant ah, na ma ñibbi. Ah, bu la neexee. Ah, ma ñibbi nga def politique de chaise vide. mais fii munoo fi toog ba pare di ñu tere wala di ñu waxoo wax nu ñuy waxee. d'accord naa d'accord naa mais du ma may man ma toog fii ñu traité sama président de dictateur je suis désolé fii kaay ma wax la yaawal dënn Macky Sall fii mooy suñu président fii lu ne la fii dégg wóor na ma ni dina toog ay ngoon yoo xam ne li ñu fiy wax du ko neex mais li ngeen wax li sama président du ko wax donc vous supporterez qu'on parle de du président Condé comme on veut ça on n'ose pas le dire à raconte pas que tu suis, grand je suis désolé maa ngi commencé. Ah. maa ngi commencé bëgg mer man. ah meral meral man maa war a séddale parole waruma mer. bu ma merloo s'il te plaît. Charles tu continues démocratie marque de fabrique. fii moom démocratie la amul modéré langage fii dañuy wax lu ñu neex. mais dans le respect xam nañ fu ñu war a yem. ah déet ne nous faites pas la leçon ak jox ñu ay œillères. naan ñu xool leen ni waxal ni mënul nekk. grand su bu su su demee noonu rek euh, mun nañ ñaanalante il faut que ça soit clair aussi fii ku ci euh, lu la neex ngay wax Charles vas-y euh, je n'ai pas dit que Condé ne vaut rien kooku ñemewuma ko wax par contre il se fiche de la constitution fiche c'est ce que j'ai dit ce que ça veut et Condé di siyee. comme l'émission c'est en wolof na wax ci wolof quoi mu bàyyi français bi. si vous n'êtes pas content vous vous levez et vous foutez le camp d'ici point final. c'est à toi de foutre le camp c'est pas moi. non je vous yow yaay foutre le camp pas moi. moi je suis un invité. non non non yow yaay foutre le camp. non non il n'a qu'à modérer sa langue. Condé waaw foofu d'accord yow yaay tu te prends pour qui. oui oui non non non non Condé Condé may ma tamit. moi je te connais. Condé Condé non non Condé wuy ma. Condé je te connais aujourd'hui. du tey la xam nga Condé s'il te plaît dégluwaat ma eh, Condé. kon de s'il te plaît. mais il faut autant je n'étais pas d'accord ak euh, Charles. dégg li aussi je ne suis pas. d'accord ak ak na ma réaction. je suis désolé de. voilà voilà désolé. exactement on reprend le cours des choses s'il vous plaît. très bien. allez je suis désolé Condé. dama ne. dont acte. Euh, début d'année. il y a eu une convocation pour le référendum, dont le but essentiel était de permettre à Condé de faire un troisième mandat. Début d'année 2020, février 2020 si je ne me trompe. Nous sommes en octobre, huit mois après. Et je pense que cette affaire-là, cautionnée par la CDAO, est en train de mettre notre sous-région dans une situation très très très compliquée. gis ngeen euh, lan moo xew ci jamono yi on avait lu ñuy wax des peuples qui avaient une participation on avait l'action elle était participative elle est délibérative en termes d'élection pour les pays qui connaissaient la démocratie mais yàlla dafa def qu'aujourd'hui Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des peuples interventionnistes. loolu moo bees beaucoup plus d'activisme et est très jeune 70 pour cent 35 ans di jël ay gaal quand on n'est de donner à son lu mu bëgg on s'en va ce Mali est une démonstration d'interventionnisme du dañu génn si tali bi pas deux ans ñu génn ñu ne ko demal et loolu mooy gën a di dem di dal di law et je dis que le président Condé a posé un problème non seulement à la Guinée mais à toute l'Afrique de l'Ouest et ça ça se démontre Barka que nous attendons cette affaire-là ça nous en avons peur la Guinée la terre promise et waaye boo leen demee ba ba liir au de Canaan quand au-delà de Canaan quand tu traverseras le canal ba dem kii dem ba à l'opposé tu trouveras la terre promise bu ñu jàppee que le jardin d'Éden c'est la la Turquie la terre promise c'est la Guinée amul benn dëkk bu ko dàq au monde amul benn dëkk bu ko gën a riche au monde amul benn dëkk loo xamante ne Guinée lu mu am kenn ne le lui envie la Guinée a tout ça comment se fait-il que la Guinée aujourd'hui soit ce qu'elle est c'est un désastre historique économique géopolitique géostratégique moi j'ai beaucoup de respect pour Condé, pour tout le combat qu'il a fait. Condé s'est battu ouais. comme un Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade lu mel mais le Condé nekk nekk Guinée mais avait-il le droit au nom de tout ce qu'il représente de tout ce qu'il est de tout ce qu'il peut incarner de poser cet acte-là c'est ça ma réflexion et il n'y a pas de terme je n'aurais ça veut dire ça va être de manière ou de manière assez incivile, parce que quand on perd le respect de quelqu'un, on se retrouve à avoir un langage de poissonnier. Et c'est aussi simple que ça. Dafa am des morts. Et pour moi, c'est ça qui est important. La Guinée pleure, l'Afrique tremble. Et on va faire quoi? Parce qu'il y a une CEDEAO qui est incapable d'assumer le rôle. loolu nañ ko waxante. la Côte d'Ivoire arrive fan lañ dans avec des peuples interventionnistes des jeunes yoo xamante ni dañuy génn ci mbedd bi taxaw ci mbedd bi di ko défendre ak policier ak policier ak gendarmerie c'est ça dans un monde de resserrement de centralisation le monde entier se centralise la démondialisation est en marche parce que les marchés parce que tubaab bi daanu nañu il ne reste que le moyen nous de confisquer l'avenir de toute une jeunesse et de dire que l'horizon de cette jeunesse a 82 ans Mais vous imaginez que le Sénégal a connu la même chose en 2012. 17 morts. Et vous ne pensez pas qu'il y a des responsables pour ça Alors moi, si je vous ai choqué, non, hmm. non, non, non, je veux dire... Donc, non, attention, je ne dis rien de mal. Je te dis, je te connais, je te connais physiquement. Voilà. Nous avons beaucoup secteur. C'est au nom des principes, Condé. Ce n'est pas au nom de NIT, Non, c'est au nom des principes. Et ce qui se passe en Guinée est malheureux. Oui. Euh, man, d'abord, euh, je voudrais m'adresser à Condé 2. Mhm. Parce que quand même, il faut l'appeler Condé 2. Mhm. Parce que quand même, je suis très désolé de voir une personne défendre Alpha Condé et qui est très mal en point. Parce qu'il est très mal en point, il n'est pas à l'aise, c'est pourquoi il s'énerve. Mais il faut parler en Olaf là. parce que da ngay wax. mais l'émission c'est on s'adresse on s'adresse on nous non parce que également la télé. dafay transmettre au Guinée. et les Guinéens qui nous écoutent nous écoutent en français. donc tu ne décidera pas ici. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax français la ñuy wax wala wolof. Ah ça c'est quand même très important. Mm-hmm. c'est-à-dire on te respecte en tant qu'invité. mais aussi respecté ñu nga suñu opinion. ñu respecté sama président. oui. nga respecté sama président. oui on respecte. je peux qu'on on est je vais parler ah, c'est en fonction des actes qu'il a posés dans le passé ou en fonction des actes qu'il pose qu'il qu'il en train de poser. en face de nous un président qui a 82 ans, qui marche à ça veut dire quoi 82 ans qui marche à peine. ça marche veut dire quoi marche à peine mooy un président qui marche en titubant. en titubant mais il a toujours marché comme ça. oui il est malade alors. non non non il a toujours marché non, comme ça. non kon nag ñu dégluwoon tey xam nga ci lay gën a neex. non non il faut que j'éclaircisse parce que non non oui oui ma oui ma le président a toujours marché comme ça. kon de kon de bu muy am 40 ans ni lay marché bu muy am 42 ans ni lay marché. kon de kon de pour débat bi neex ah. ñu jëlee ci njëriñ. il faut regarder Il s'incline en marchant. Mais il est D'abord, ce qui est requis pour un président de la République, c'est la santé physique. je le connais très bien. Non, ce qui est là, il la protège. Konde, bi ngay wax dañ la déglu religieusement. Tu vas, tu vas, tu vas. Non, Konde, boo waxul lu dëgg. Non, non, non, non, non, je suis désolé, ça, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Konde, Konde, boo bëggee de son ingénieur anti ban mais ça veut dire quoi ça? Mais il a le droit de On n'a qu'à parler de la Guinée, li fa xew ci élection pas attaquer mon président directement je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord mais ni ñuy waxee ci élection yi te waxuñu ci Condé mi nga xam ne moo doon candidat moo ne moo gagné affaire bi indi problème. mais bëgg ñu wax ci élection yi bàyyi Condé. kon de bu ñu imposé. non ñu ñuy li ñuy wax imposé ah. wu ma leen imposé wu ma leen. wu ma leen mais je n'accepte pas qu'on attaque mon président. kon de kon de je la dernière fois nañ organiser débat bi. nga déglu nit ñi wuy ma on a qu'à modérer les la ñu respecté la on se doit bu ñu respecté sama président am respecté leen. non ah si. assi ah, kon de kenn manqué wu fi de Charles bi mu bi mu waxee retiré na li mu wax nee na la kii désolé. Malal a pris le relais Malal jël na attaque mon président un vieux qui ça. mais mooy kan ba duñ ko attaqué mais il n'a qu'à souffrir qu'on l'attaque on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça on n'a qu'à parler directement sur président le président Alpha Condé woy li tax mu def li li mu def li tax mu def li d'accord mais bëgg a wax ci âge am bëgg a wax ci ni muy doxee mais ça veut dire quoi ah. bi âge am boobu si nga wax ni buñ ma leen tegaloon relais ñoom ñi dem dox marche ah marche 35 kilomètres mu bàyyi leen ci ginnaaw man maa la wax loolu. soo ko bëggee jàpp nii dina dina. non si que dama xam sama président. chaque 30 secondes. wax dama ànd ak moom dox ak moom géejawaay yëmbal partout ak tànk. Hmm. dama ko dugal fu nekk. léegi mun nga may malal mu terminer sa réflexion. léegi je voudrais faire dama buggoon mu def un petit calcul. 82 ans mooy at yi mu fi ñëwee muy dox ak moom géejawaay yëmbal je te permets de faire cette soustraction. amiin 82 ans mooy. waay at yi mu ñëwoon fii Sénégal nga ànd ak moom di dox yëmbal ak géejawaay. xam nga âge bi mu toll nii 82 ans yi. xam nga lan la wax opposition bi. biñ koy traité mun leen. kaay leen ñu jógee secrétariat jëm kilomètre 36 on va marcher je vais vous laisser derrière li tax mu wax loolu man xam naa ko. man dama am confiance sama président état de santé am c'est zen dafa wér nit ku wér la nekkul nit ku feebar ni muy doxee nii di titubee kooku yàgg na ci moom il est il est né comme ça il est né comme ça il a grandi comme ça amul problème problème de santé amu ko amu ko il fait son sport quotidiennement il fait son sport quotidiennement kon de xam nga mënoo monopoliser nii. la monopoliser wu ma la parole cannibaliser kon de kon de bëgguma lu mësul bi. am fii on n'a qu'à parler directement des élections. non non non ak yooyu xaaral rek c'est la dernière waaw loolu la kon de tu vas li tax lu mësul am ci plateau bi ak man bëgguma mu tàmbalee tey si on continue comme ça. billaahi wallaahi bëgguma woon waat mais vous allez nous quitter. bugguma fa yegg nag wax la ko wax waaw si c'est avec plaisir on va y vous laissez les gens vous laissez après nga tontu. je vous dis que vous aurez la parole. Barka may ma rek xaaral vous aurez la parole mais ça ne peut pas continuer comme ça et ça ne doit pas comme ça. d'accord la parole. Malal tu as la parole. je te promets que soo continuer rek. on va se quitter. recevoir on se connaît pas xam nga gêne quand même je suis gêne maa ngi déglu der war nañ la ñaan nga nga may malade vas-y tey ndeysaan c'est bon c'est bon ok malam tey tey ndeysaan mbay mbaaxaan moo aalu waay. Oh, dafa bëgg yàq émission bi malal. on ne peut pas continuer comme ça. nañu déclonté je vous donne la parole. à chaque fois à chaque fois que. à chaque fois que. xoolal je perds mon latin xam nga sax naka lañ koy may naa la ko maa ngi koy déglu. voilà c'est kii du dara malal yow kon ne. maa ngi koy déglu. <laughs> eh waaye yàlla nañu yàlla dolli surtout nag. maa maa ngi déglu Malal waxal ñu ngi lay déglu. <laughs> c'est ça Sénégal quoi nañ ko sant yàlla. et puis euh, moi j'aime bien les politiciens. dañuy wax benn affaire mu leer leen ni li ñuy wax gëmuñu bon d'accord grand comme que comme que indi nga apaisement. maintenant mun nañ la concéder les histoires d'âge et cetera de physique de santé. c'est pas grave parler politique. bon Alpha Condé a été soutenu bi mu nekkee opposition au niveau sous-régional au niveau continental. je me rappelle de la célèbre chanson de Tiken Jah Fakoly. Libérer Alpha Condé. toute une jeunesse s'est mobilisée. pour que Alpha Condé. soit rétabli dans ses droits mhm. nit ñi xeex il est arrivé au pouvoir dans un pays boo xamante ne aussi également dafa am histoire muy Guinée de Sékou Touré ñu ñëw tey il faut quand même ñu dellu ginnaaw li ñu indi ci situation bi c'est une situation de troisième mandat même boo bëggul ñu wax troisième mandat. non je suis d'accord on c'est politique. les troisième mandat fan la IBK mujje il a IBK fan la mujje il a tripatouillé jaxase ay élection ñëw nekk au pouvoir il est il est parti il est parti comment de la manière la plus honteuse Abdoulaye Wade bi mu forcé troisième mandat qu'est-ce qui s'est passé il était très aimé des Sénégalais qu'est-ce qui s'est passé il est parti nit ñi dañ ko yóbbu ci élection gagné ko qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres lan mooy lan mooy en fait Alpha Condé par rapport à la Guinée lan mooy Alpha Condé par rapport ak askanam lan mooy Alpha Condé par rapport effectivement ak cette Guinée qui a traversé énormément de souffrances mm-hmm. énorme c'est un pays qui a traversé beaucoup de souffrances mm-hmm. boo xamante ne Alpha Condé amoon na fu ko mën a yóbbu les histoires de Cellou moo njëkk wax ni woy gagné na kii nee na gagné na et cetera et cetera le problème c'est depuis le début Alpha n'a pas joué un jeu transparent depuis le début la transparence par rapport à ces élections-là a été dévoyée deful dara lu leer du début à la fin et finalement qu'est-ce qu'on fait on mobilise une armée, on mobilise la police contre d'honnêtes citoyens, contre des jeunes qui disent que, écoute, nous, nous en avons marre, nous voulons que les choses changent. On tire sur ces jeunes à bout portant, sur des jeunes et des femmes. rey ay ndaw rey ay xale. on a tiré sur personne. non on a tiré c'est Cellou qui a des mercenaires qui tuent les enfants. non loolu sa commentaire de partisan la. je sais c'est pas partisan. non on connaît la. non non loolu. non non loolu sa commentaire. si je te concède je te concède les images sont là. je ne suis pas on a une Guinée qui les images là n'ont rien à voir avec ce qui se passe. des images empruntées ou inventées. à bout portant ici c'est on connaît comment ça se passe. ici c'est non dégg di ñu déglu di déglu xam nga yow gëj nga Guinée Barka mii moo nekkoon Guinée fan yi waaw moom dëgg la fraîchement revenu de Guinée te boo déggee li Barka wax dafay daf lay laal tey fi ñu toll fi ñu toll mooy wax alfa dëgg nan lañu ñu mën a waxee alfa dëgg mooy wax ak waa CEDEAO qu'est-ce qui s'est passé en Gambie quand quand, quand Yaya Jammeh a voulu se comporter d'une certaine façon oui, après, la CEDEAO s'est mobilisée ça s'est terminé La CEDEAO s'est mobilisée sauvé... et parti. Qui a sauvé la Gambie? Parce qu'il a voulu il a. c'est le président Alpha Condé qui a sauvé la Gambie. Égypte mën naa leen ko wax fii léegi léegi leeral leen ko nan la amee yépp mën naa ko je suis témoin de tout ça. maanaam jaa fi mu voilà. Bouba ci waxtaan bi. Euh, euh, bon déjà damay damay ñaan nga may ma rek ma ma ma jaale sama euh, mbokk axlu laayeen nga xam ne suñu xalif général bi waaw dafa vraiment ñàkk ñàkk njabootam ñu koy ñu koy jaale jullit yëpp di ko jaale sénégalais yëpp hmm, muy muy lu diis jéggalu loolu lañ waroon waaw muy lu diis waroon doore muy lu diis mais eh, mhm. daal ñu leen di ñaanal mhm. te incha allah xam naa ni mhm. euh, waa émission bi tamit président Charles dina ma may benn jour xanaa ñu àndandoo dem dem dox dox doxu njaal moo taxoon demaguma sax pour que ñu ànd dem ci xalif bi ah, ñu jaale ko parce que almadi la ñu nekk incha allah te xam nga lu muy signifier waaw donc ñu ngi si keppaaram ba léegi foofu la émission bi di xewee c'est très important incha allah waaw bi ci bi ci topp mooy je pense que il faut ñu arrêter wax en tant que sénégalais wala guinéen wala ivoirien te wax en tant que sénégalais en tant que africain c'est important te loolu moo déggee Condé ne bul wax ak sama président Alpha Condé suñu président la ñun ñëpp parce que Guinée moom mënoo ko tàggaleeg Sénégal te euh, pour man boo xasee ba am benn ndomba tànk nekk président de la république li la nit sañu te wax xam nga mooy lan mooy lu koy yóbbu kaso lu la nit sañu te wax mooy la nga xam ni dafa dépassé loo xam ne xam nga juridiquement mën na dem kaso mais opinion moom il faut ñu la koy wax te dafa am dara lu am wax fa dëgg yàlla euh, lu yenu maanaa dañ ko war a di convoquer ci Afrique tout le temps parce que boo demee ci taxi si rek mën ngaa réer parce que nit ñi aussi dofuñu même boo ci bëggut dugg boo seetaanee nii rek boo dee sa tëraay bàmmeel nga waxal xam nga ni mbir yi mënul jaar yoon moo quand li ma li ma njëkk li ma njëkk a euh, lié ak ak euh, Guinée mm-hmm. mooy Sénégal ak Guinée mais Guinée moo Guinée fii Guinée la mais comment on s'est débrouillé pour que Guinée yi nekk fii voté wuñu Moi, j'aimerais bien poser cette question-là à Comé. Oui, parce que aussi, loolu dama lay wax link boobu parce que bu dee yow yaa leen fi toogal tu le dis ça ak prétention dak Sénégal Mauritanie kii yaay géré kii boobu yëpp liggéey bu am solo liggéey nga ko pour que nit ñi bañ a voter parce que quand on parle de deux millions de Guinéens xaw ma chiffre yi ndax exact na même voilà trois millions mais non nañu wàññi un million sax bu la neexee que ñu débrouillé wu que ñooñu voté ñu je ne je ne pense pas que Seydou Dalein Diallo bëgg na loolu donc déjà il y a deux millions de de ou trois millions de Guinéens yoo xam ne privé na lañ leen de de de de de vote te loolu pour man ça veut tout dire parce que bu fekkee ni cinq millions de personnes ñoom ñoo inscrire loolu la ñu wax nga jël trois millions yu nekk ci benn dëkk walla deux millions nga ne leen yéen doo leen voté waxuma yeneen dëkk yi. c'est quand même la responsabilité de ki nga xam ne moom mooy Alpha Condé moom mi nekk ci pouvoir bi responsabilité moom muy organiser ay élections yu jaar yoon yu nga xam ne citoyens yëpp dañu war a voter loolu dafa am solo donc aujourd'hui aujourd'hui il faut ñu indiwaat mbir mi terre à bu ñu fi indi ay loi ay constitution gars yi dañuy Afrique feebar bee fi ne ni corona bi nekkee fii noonu la ngoy ci pouvoir nekkee fii te loolu tant que dañu fi ah amul représentant diw amul 82 ans amul kii faa yi dañuy wax 82 ans boo demee ab passé nañ loolu sax ñun ci itam ci réew mi lan dëkk faa yi boo leen xoolee xam ne xam nañ passé nañ 82 ans ñu si gën a bëri ay jugement la ñu am waxante dëgg li lii aali kalaj gi ah moom mooy que dañu war a bàyyi accroché wu ci pouvoir nit ki tabaxal développé dëkk ba fi mu gën a kawee jëlal Guinée nga def ko mu raw Chine joxul la le droit nga dépassé fi nga war a yem da ngay def pare keneen ñëw te loolu li may blâmer Seydou Daleon Diallo mooy que war woon permettre sa élection yam loolu une question beneen question bi ma bëgg a xam parce que ñu ngi naan am na ay nit yu yu yu yu démissionné su fekkee ni vice président Séni bi ngeen di wax. si seen parti la bokk. j'aimerais bien savoir sa position tey loolu c'est une question très importante. parce que je ba léegi je suppose que ki ngeen fa teg yéen a ko tànnal seen bopp. te war ngeen ko wóolu parce que lu daal ni seen i moom mooy organ bi nga xam ne moom mooy officiellement joxe résultat yi boo leen fa tegee nii c'est parce que wóolu ngeen ko j'aimerais bien savoir waa ji lan la wax fu mu nekk nii tey ji nii nan la demee parce que man boo ma yónnee fenn ne ma kaay bu ma gisee ni et je suis le vice-président wax fa dëgg yàlla damay teg ci taabu bu dee nag objectivement dama war parce que loolu aussi day indi benn contradiction parce que wax na fi sànq Condé ne élection yi buñ ci waxati bu ñu waxati ci troisième mandat je suis je te le d'accord naa parce que permettre nañu ay élection am mooy d'accord nga dem élection bëri ji 2012 bi mu amee fii président Macky Sall ñii dañu ne nañ boycotté kii moom man day dem élection gars yi di nekk fii kii moom muy dem di di di di def yeneen affaire mm-hmm. ba ba ñëw dem kii donc pour man boo d'accord ba yeewu suba solo ba jekk ànd ak sa jabar dem voté ji rek mooy que tu es consentant tu es d'accord jour boobu on remet les les les compteurs quand même à ah, zéro après mën nañu critiquer ci derrière maintenant processus bi il faut que ñu wax ñu exactement comme ils sont bien représentés foofu moi j'aimerais bien que kii ànd ak moom aussi ah mu wax ñu un ñoom au niveau de de CENI boobu lan la fa seen représentant yi wax pour ñu mën ko xam c'est très important tey gi parce que tey gi ni bu procès verbal bi génne moom mu signé ko vice président bi nde si la ànd soit il est corrompu ngeen de ngeen ngeen ngeen dénoncé ko wala li li gars yi di di di di di wax moo moom moo nekk parce que aussi loolu moo am solo ah, je suis satisfait mën naa répondre ci buuba lu mu laaj bon lu tax élection amu fii waaye pour pour. lu ko waral après on va à Papis Papis merci de patienter alors. Euh, merci bu baax ak Sirési. c'est pas pour te jeter des fleurs. yow yaa ngi analyser parce que nit ki da nga koy déglu. Hmm. très rapidement waaw. li tax élection amul fii c'est simple. Hmm. seni bi dafa mobiliser équipe bi complet ak machine yi les carles 17 carles. 17 17 carles machine yi ñuy pour recensé pour enrôler waaw. la envoyé fii. Mm-hmm. kan moo jiite délégation bi. le vice-président de la CENI. Mm-hmm. boo xam ne ni ci opposition bi la bokk. bokk ci camp Ousseynou Daleng Diallo moom moo leen indi bi mu leen indee ñu installé leen ñu tas leen partout dans les régions Saint-Louis Casamance Matam partout ñu installé leen ma abal leen sama siège man sama siège laaj ma leen dara normalement dañoo waroon a fay foofu lañ defee formation bi. ma bal leen sama chaise fay ñu dara mais ci biir formation bi le vice-président mu génne benn fiche génne ko wan ko ñépp ne leen fiche bi il faut ñu permettre Guinée yi ñu enrôlé wu ak fiche bi nous sommes des politiciens ñun xam nañ ñi fiche bi ce n'est pas fait pour le Sénégal c'est fait uniquement pour la Guinée pour les contrées les plus reculées maanaam les districts ñoo xam ne ni juddoo nañu foofu màgg te amuñu kayit judd maanaam ci village yi mhm. ñooñu lañ ko jagleel pour ñu bind mu jël fiche yooyu multiplier ko defar ci ay centaines de centaines de fiches en couleur indi ko fii tuur ko fii pour yéen da doon fraude non pour ñu jox ko ñi nga xam ne ni ñi ngi fii ay guinéens yu amul kayit pour ñu enrôler leen si ñun tamit ñu ne leen ñett ñu woo président CENI bi mu envoyé ñu un document boo xam ne boo xam ne nii fiche yooyu c'est réservé uniquement en Guinée dans les districts. ce que tu dis c'est faux. non attends attends li ngay wax c'est très ouais, c'est très faux c'est faux ça ça ouais, d'accord non c'est très faux mais attends mais attends mais écoute non non dama la bëgg a wax li indi histoire bi lu tax enrôlement bi amu fi. sois sérieux mais malal li nga wax moo dul dëgg man li ma wax mooy dëgg. li ma wax mooy dëgg yow li nga wax du dëgg. non non ne me dis pas que c'est faux. c'est faux yow yaay faux. tu n'es rien devant moi. petit gosse qui a qui a joué devant a joué devant moi c'est moi. ne veut rien dire. ah ça veut dire quelque chose. il doit de tey ma tey moom plateau li may wax xamul dara ci. xamul dara ci affaire déglu ko kala. affaire Guinée dara la ci xamul. na bàyyi ma wax. bu dee bu fekkee ne ni loolu amul. ma indi la preuve yëpp tegal la ko. li si seni bi nga xam ne président bi lu mu signé nee na fiche yooyu c'est pas valable pour le Sénégal. Mm. fekk ñoom distribué nañ ko. enrôlement yi commencé ñu ubbi bureau dans enrôlement dans euh, enrôlement yi. caaro yi Rufisque foofu la affaire yi commencé. Mm. ñoom ñu ñëw ak document yooyu suñu représentant yi opposé wu ne lii du jàll xeex bi commencé président de la CAMI bi ñëw. ne dañuy arrêté enrôlement yi parce que sécurité amul comme xeex mi ngi fi am mu ñoo gis ambassadeur bi ne na il faut nga bind ministère de l' bu Sénégal pour ñu indi sécurité ñu mën a def enrôlement jour bi muy bind lettre bi pour envoyé ko ministère de l' intérieur ci la ñuy attaqué ambassade bi saccagé ko yàq li fa nekk lépp léegi nag ñi indi machine yi président de la CENI bi bokk si ñoom ci opposition bi ne sécurité amatu fi il a bagage ak bagage ñu àndaloon ñëpp dem ñibbi. mais moom moo jiite délégation bi mais moom moo ñibbi. enrôlement amu fi. kon bokk élection mënu fi am. Ah, une question non une question pour que non j'ai une question. en fait non j'ai une question. non Condé et pour l'Angola qu'est-ce qui s'est passé. c'est même chose Angola ils ont saccagé. mais léegi non attends xam nga fan. fan non non parce que xam dañoo def enrôlement. ba pare saccage ko soog a am. ñu lakk ñu lakk lépp. mais malgré ça comme enrôlement amoon na ñu defaat ay duplicata tiré yëpp. Mhm. delloo ko. mais oui ma donc Libéria donc Libéria voté nañ fa. saccage dafa amoon ñu lakk ñu lakk yépp mhm. mais malgré sa ils ont fait des duplicata. tiré waa fiche yépp delloo ko donc voté nañ foofu. voté nañu. Gambie voté nañ man maa ngi woon Gambie élection mais mais mais y a une question c'est-à-dire euh, bu fekkente ne. question de ñu fi nekk. Mhm. di votel selu waaw ils ont besoin de voter pourquoi ñu yàq. seen vote ñoom si seen bopp war a yàqu vote boo xamante ni moo leen may ñoom ñoo ñoom maanaam ñoom ñoo ñoom ñoo jël ay ba xëpp ko seen kaw ñoom ñooy majoritaire fii ñun xam nañu cellule il gagne ici ñun nañ ko mais mus ñoo est-ce qu'ils avaient intérêt à faire ça ñoo nangu ñu dans ce cas est-ce dañoo xamul hmm. ñoom dañoo xamul question ils ne connaissent pas non parce que parce que parce que euh, euh, réponse bi li ma ah, mooy lii dëgg mooy lu leer ok dégg nañ la. c'est ça si la est-ce la wax man mi posé question bi. waaw ay cokkoon tu n'es pas satisfait man yow laa war a tontu boobu laa war a tontu parce que dafa am posé question. bu am solo mais bi léegi ci ci réponse Condé. avec tout le respect que je te dois. Mhm. te yàlla xam na ni su ma sañoon nga jóg fii ba dem. Mhm. te du ñu jàppante. kan comme ni parce que mënoo jàppante ak ah mën na nekk de. waaw mais mën na ne waaw waaw mais mais dinaa def lépp pour évi pour éviter ko. Ah. maintenant maintenant maintenant mun nga ma jox réponse mais yéen vous êtes tenu pour que ngeen organiser élection. oui état bu Guinée ci boppam. président sortant c'est pas pour te présenter rek c'est pour organiser des élections mhm. ñu jaar yoon seen responsabilité avant muy nekk bu opposition bi. Mhm. parce que à t'entendre parler j'ai l'impression que. oui. Euh, organisation bi c'est c'est c'est l'opposition moom moo ko war a def parce que yéen yéen war li nga wax ni hmm. jar na reporter sax wala reculer ay émission ay euh, ay ay ay élection wala wala wala def parce que tey jii nii ci élection euh, Guinée yi fii bi hmm. xoola Condé hmm. élection Guinée yi débrouillé ngeen ba Sénégal voté wuñu foofu la foofu la question bi nekk buuba pexe ngeen. ba ñu nekk fii bañ a voté. xam nga man li gën a garaaw li gën a garaaw bu ñu indi le côté ethnique ay guinéen lañu ah fexe ngeen ah. barke Seydina Limamou yéen. ah bu ko waat yéen boo leen bëggoon waaye eh, eh, bàyyi sa biir ah, bàyyi sa biir attention ah, Seydina Limamou laay kenn du ko ah, caaxaane de. mais calme si nga bu fekkee ne da nga am sa wasila. non non non te loo xam ne ay kenn ci baa la voir man maa la wax loolu. mais calme toi calme toi. man sama wasila sëñ Touba du ma ci waat nii ma di ko muy ay caaxaan. defal naa wuy ma xoolal xoolal. yow Seydina Limamou laay ngay waat ci moom ci loo xam ne du dëgg. man ma xam dëgg bi fu mu footee. xoolal wuy ma non non Doudou arrête Doudou arrête toi aussi. est-ce que mun naa mun naa arrête pas jurer ci li ma. voilà loo xam ne du. wuyu ma c'est pas bon wuyu ma c'est pas bon. wuyu eh, ma moi je ne jure jamais ci les gens. mais mais il faut nga il faut il non non attends mais il faut que. ah kii euh, euh, Condé. allez-y Bouba xoola wuyu ma xoola wuyu ma gënoo fii. bu gën gënu ah, ma kenn mais di nga ma déglu. naa la déglu mais xoola dama ne. mais boo waatee ma tontu la xoola xam nga lu ma lay xamal xoola xoola wuyu ma gënoo fii. rakkaaju kenn il faut que tu te calmes. du question rakkaaju mais calme mais xoola xoola. du question rakkaaju demal si sa question directement du yow xoola bu ma ngay waat di dëggal loo xam ne nii du dëgg c'est ça wuyu ma. mais boobu ngay waat si seen naa li ma mais calme mais non mais xoola boobu ngay waat si seen naa li ma pour dëggal benn affaire. bàyyi ko mu jël responsabilité boobu digganteem ak wasilaam ak yàlla. waaye damay bañ ba tëdd si non bu ko bañ wuyu ma moom ñeme na ko engagé kay. bu mu la déranger honnêtement honnêtement euh, xoola euh, un peu de un peu de classe waaye tuuti. quand même non non non non non soyons soyons nañ nañ teg affaire kilifa nga quoi. yaay représentant ci dëkk yëpp kilifa nga calme toi. s'il te plaît ça ne sert li nga def. tu t'excites pour rien du tout. il est sans argument munoo fexe xoola munoo fexe ah, mais mais mais écoute mais xoola mais non. parce que non non. par contre non non non non non non non non non non non non non te mu bokk si ñoom loolu tamit dinañ ko war a calculer lu tax. mais ce que tu dis tu sais pourquoi c'est faux. non mais ma mais ma non non Malas. li muy wax li tax. non Bouba xaaral. non Malas Malas tu ne connais rien de la Guinée xamuloo dara ci Guinée. bu doon wax waaw waaw mais xoolal. yow bu wax dara ci Guinée xamoo dara ci Guinée. xam nga lan nga nekk di def nii xoolal xam nga lan nga def nii honnêtement bàyyi ñu ñu wax lu ñu xalaat ngir yàlla ak yonent bi xoolal kii moom xamul dara ci Guinée non non mais il faut nga. Euh, amul dara la muy wax ci Guinée xamul dara ci Guinée. Condé Condé xoola xoola dañ lay warmaal li ngay def nii ça ne nit yi lay seetaan dañ lay jëppi sax. amen non non mais il faut que tu te calmes nga bàyyi nit ñu wax seen xalaat boo d' accord d' accord mais excité ni nga excité woon nii ça ne sert franchement nit yaa ngi seetaan yaa ngi jël suñu suñu mënoo xuloog dama ne la ah, encore une fois débrouillé ngeen ba. Guinéens yi nekk Sénégal. waaw lu tax ngeen di wax loolu débrouillé nañu. non mais xoolal mais il faut que tu te calmes calme toi xoola ni ngay représenté da nga xam ma Alpha Condé ngay représenté et ça m'étonne mais mais kenn xamul kenn xamul euh, tëgg nga kenn xamul géwél nga kenn xamul. <laughs> man géwél euh, non non. Euh, euh, non kenn non dafa naan xamul daal kenn xamul sénégalais nga kenn xamul. ivoirien nga yow. yow tu n'es même pas représentatif. de l'Afrique mais Bouba je suis africain. waaye non li ngay wax kon nag nga bàyyi africain yi ñu wax ci Afrique. mais Bouba je suis africain kon nga bàyyi ñu wax ci Afrique. mais Bouba j'ai juste une remarque. Ah je suis africain. mais kenn xamul. oui voilà kenn xamul guinéen nga kenn xamul. solo nga kenn xamul. Bouba s'il te plaît. Charles Charles très rapidement rek parce que Papis. non dafa am waaw dafa waaw je sais ngeen ngeen baal ma rek c'est parce que dafa am loo xamante ne allez-y euh, la Guinée dise qu'on puisse dire c'est une dafa am loo xamante ne boo buñ ko bàyyee mu jàll ñun sax ay tournée la ñuy doon loo xamante ne day jóge si wàllu élection dafa am loo dafa am yoon si ñu koy teral te c'est le ministère de l'intérieur qui s'en charge oui wala barkatu wala yàlla na euh, mbir boo xamante ne si ni bu ko doon tam indi Sénégal ministre c'est sur l'encadrement de l'intérieur ouais. dont le ministre je pense fait partie de l'attelage quand même du président Condé donc comment se fait-il qu'avec Soupli Sélé loolu yëpp war a ñëw fii quand bien même mu am koo xamante ne moom moo si jiite nekk seeni mais xanaa nag amul ministère de l'intérieur bu ko gunge pour que ñu mun ko ubbi xanaa nag pourquoi la République de Guinée est-elle absente sur cette affaire-là dëgg yàlla man loolu moo ma jaaxal parce que bu fekkente ne am na benn cas Sénégal on est d'accord mais des cas qui se répètent et qui sont identiques xanaa nag ñëpp mooy suma problème bu nu waree voté kii mu gagné ñun ñu def la ba xëpp kii quelle est la réponse la le, le ministère de l'intérieur n'était pas dans la valise diplomatique qui a mené à euh, Dakar euh, des les documents ou bien les xam nga la diaspora ça ne représente même pas 1 pour cent. non ma question ma question ma question c'est est-ce que le ministère de. non Condé Condé Condé. la question non Condé Condé la question. oui avant de revenir à. këyit yu ñëw fii. dem Angola ak n'était pas sous la supervision et l'autorité du ministère de l'intérieur. de la Guinée de la Guinée. waaw. je ne je ne peux pas répondre à cette question. li ma la mën a wax mooy. li ma la mën a wax mooy. dañu bàyyi l'organisation entre les mains de militants. non ça ne se passe pas comme ça. non ça ne se passe pas comme ça. ça ne se passe pas comme ça. la Guinée la Guinée. Séni bi mooy déployer ay nit. mais Der est-ce que c'est lui non. qui représente. Mais bien sûr. Euh, non non moi je pose une question. mais oui ma une question. mais oui ma les yeux dans les yeux. te pose cette question. oui allez est-ce que c'est toi qui euh, euh, représente le ministère. qui représente le parti de Alpha Condé oui. <laughs> je te dis regarde-moi les yeux tu me poses cette question. xool ma ci bët nga posé. mais non non non non man ñeme naa taxaw fi ci télé bi fii ak ni ñu ma xamee Sénégal. oui ni ñu ma xamee Sénégal man ma toog fi naan représenté. quand on est par tes réponses. ah mais non c'est trop dire question boo ni la bon il connaît la réponse bien sûr. avec le président Alpha Condé ça fait ans cette année ci on est ensemble. Condé bon allez Papis Diaw. moi j'étais dans la jeunesse ba ba nu ma jëlee. parti au Sénégal. boo moytul sax parents éloignés si tu me poses cette question daf may jaaxal man. <laughs> ok ah Papis à toi la parole c'est pas ah, toi je Papis Papis. Euh, c'est à toi waaw monsieur Kone moom ku ñëw mooy papi j'écoute. mais bi ngay wax tu as remarqué que man je t'ai pas coupé. non non non je t'ai pas coupé yow tu as toujours comme ça. d'accord donc je ah, dégg nga daaj doo dugg doo dugg ci waxu ah, jaabur dañ lay bàyyi Konde est-ce que comprendre naa déggoo fi muy wax ak yow daf dégg naa ko waaw loolooy coupé wu ma voilà ah, loolooy bu ko coupé <laughs> jeex na par courtoisie allez may naa ko mu développé merci en fait man damay damay ñëwaat tuuti ci Euh, Barca fu mu nu mu nu mu le débat je pense que c'était vraiment bien parti quoi parce que autant mun nga choisir li ngay wax autant waroo exclure dara parce que dans cette situation aujourd'hui amul dara lu isolé tout est lié en Guinée tout en partant de Sékou Touré ba léegi tout est lié amul dara loo ci mën a génnee ni dafa isolé ça il faut qu'on l'accepte aujourd'hui benn affaire bi moom mooy l'histoire de la CEDEAO mais ce n'est pas seulement la CEDEAO au-delà de la CEDEAO am na yeneen yu si gën a doy waar Guinée aujourd'hui communauté internationale bi intéressé wu leen d'accord la Guinée n'intéresse pas la communauté internationale loolu il faut qu'on le souligne aujourd'hui ñu xam ne li moo am Barka mu ngi souligner euh, le communiqué de euh, de la Maison Blanche mais loolu poudre aux yeux la rek Barka c'est que Donald Trump tey boo ko waxoon fu Guinée nekk wala kuy président du ko xam sax c'est non c'est ah pas son problème il faut pas qu'on rêve je veux glisser sur les institutions quoi leur importance nga glisser génn Guinée tu vas à à Abidjan c'est Konan Bédié qui fait un appel au secours au EG de l'ONU ñëw leen jàpp si ça veut dire que c'est une zone qui n'intéresse pas les gens parce que enjeu géopolitique bi xëy na moo moo toll foofu quand tu fais un petit glissement derrière pour andi benn illustration Azerbaïdjan bi mais tu sais que seen crise bi elle fait la une de toutes les grandes chaînes du monde mhm. toutes les grandes chaînes moom la ñu ubbee exact journaliste yi xam ne lu may wax. ce qu'on appelle ouvrir avec un élément. c'est vrai moom la ñu ubbee parce que xëy na stratégiquement ak géopolitiquement parlant foofu moo. corridor donc je voulais qu'on qu'on qu'on que. Mhm. la Guinée n'intéresse pas la communauté internationale il faut qu'on l'accepte man dama ko bëgg a nangoo ñu demee suñu bopp. benn mooy il faut que guinéens yi avant d'être panafricain on est d'abord sénégalais et je me permets de dire aujourd'hui si on un sondage journaliste dans la rue tout ce que tu veux pour son physique. c'est par rapport à sa trajectoire et à, par rapport aux jalons qu'il a posés. Mmh. Ce qui s'est passé en Guinée et ce qui se passe encore en Guinée, c'est passé chez nous. am nañu problème prolongement mandat man je ne parle pas de troisième mandat parce que boo taxawee sur les propos de Alpha Condé qu'on connaît très bien hein, par sa philosophie sa trajectoire sa sa vision de l'Afrique et, et même de la présidentielle c'est lui qui a commencé à torpiller la limitation des mandats c'est Alpha Condé qui l'a dit devant RFI France 24 dans une interview grand format mu ne au nom de quel principe les gens veulent nous imposer une limitation de mandat si la commencé woon di lii la commencé woon il a glissé dans ce sens pour dire beneen aspect que vous qui m'interrogez aujourd'hui vous les journalistes tey am ngeen fi ngeen dëkk vous êtes logés dans les hôtels il y en avait pas c'est important nga nga andiwaat yooyu bi ñu demee élection bi bi mu jeexal mandat bi nii est-ce qu'il y avait tout ce problème parce que le Guinéens étaient avec Condé parce qu'il y avait un benn prétexte il y avait Ebola il y avait Ebola c'était dans un contexte extrêmement compliqué mm-hmm. ensuite mm-hmm. en termes de réalisation la Guinée commençait à à flirter avec l'électricité courant di commencé ñëwaat il a fait une campagne easy yow jal il y a pas eu de problème. Mm-hmm. loolu wan année la woon. 2015 80 80 dinañ ko mhm. non non non non bu na. Oh. non na gagné na gagné na na ko mu développé bàyyi jàmbur. <laughs> merci Condé non il faut pas qu'il te coupe. non il faut pas d'accord il va <laughs> donc bu ñu glissé foofu. ñu ñëw ba maintenant présentement ci ci ci réalité bi dama animé benn émission bu ndaw keroog euh, euh, veille deux jours avant la présidentielle. y avait des les deux camps. il y avait Barker également je me rappelle ma ne leen et si et si Condé gagnait man j'ai posé la question man et si Condé gagnait xam nga lan moo lan moo ma yóbbu foofu pourquoi yow nga nekk dans un jeu tu acceptes tu t'engages on est dans une compétition et elle régis régie par une réglementation il y a un arbitre tu t'engages tu légalises et tu légitimes la candidature de la personne xam nga ndax comprendre ngeen mooy. oui tu es d'accord loolu mooy affaire lan donc donc lan lay lan lay andiwaat que nous les Africains ñu am problème parce que yow Charles ni ni mu la xëy na am na Guinée yoo xam sax yaa ngi gën a mer comme man comme d'autres. et et c'est et c'est un combat qui doit être gagné par qui qui doit par qui c'est par les Guinéens eux-mêmes. donc ça commence d'abord par chez soi d'abord avant ngay génn feneen si les gens acceptent de prendre leur bulletin d'aller voter mais c'est parce que tu reconnais cet arbitre il donne un résultat quel soit passe par le recours mais mënoo ko ne tu n'es plus non c'est pas cohérent c'est pas cohérent donc, donc on choisit la mort mais c'est un choix qu'ils ont fait eux-mêmes. donc mais arbitre mën na sàcc match bi arbitre mën na sàcc match bi mën na tirer hors-jeu boo xamante ne lu dëgg. d'accord ñu ak yow. ne dis pas que ça mais arbitre day sàcc match. d'accord mais day sàcc match. waay. ñaata yoon lañ bu sàccul rek Njaareem ak Jaxaay di jouer ñu ne par exemple arbitre bi dafa sàccal Jaxaay. j'ai été capitaine d'équipe xam naa bu bu mu ñëw foofu. xool ah, ah, ah. parce que non on va pas avancer voilà. j'ai été capitaine d'équipe. j'ai été capitaine d'équipe man latéral gauche laa si si euh, bu ñu bu ñu sori foofu quoi. Hmm. léegi léegi li ma bëggoon euh, citer par loolu ki nga xamante ne moom mooy euh, Alpha Alpha Condé. avec hmm. son âge avec mais bousculade bu mu bëgg a def et tout ça les gens ont laissé faire ba ba ba hmm. on ne devait pas arriver. à cette situation pour man dañ ko waroon bloqué bu yàgg et qu'on arrête de de de penser à l'extérieur et la France na ñëw ak mm-hmm. ne nous regarderont mm-hmm. jamais mm-hmm. tant que seeni ay intérêt de la fierté quoi c'est pas le moment taluñu ñu il faut que les Africains comprennent que il est temps aujourd'hui de prendre leur destin en main ñoom ñoo koy gérer seen bopp pesum kanam yow yaa koy fajal sa bopp coow lay bëri Charles tu vas jamais prendre de s'organiser pour seule la lutte libère ah Sankara l'a dit seule la lutte libère. Hmm. ku yaakaar ne ay caresse sans parole nga ci génne. carré tu nulle part. alors. Euh, ñu dem un peu ci arbitre bi on a évoqué. mais si waxul sax. wala <laughs> moo tax nañ dem ci arbitre bi. mais oui mais mën nga moon bàyyi tout parce que Bouba dafa poser question bu ma. bu ma intéressé dama ko bëgg répondre en même temps ma doog comment vous avez pu accepter que le processus. mais di xam naa question bi mu posé dafa ne question posé si je comprends bien dafa ne hmm. dégg na ni. seeni am na membre seeni ñu démissionné si suñu camp est ce que loolu nu ñun nangu nañ ko alal mu ak lan moo ko waral. déedéet waxuma non non non c'était pas ah. xam ne vice président wu euh, seen bi ci yéen la ñun la bokk ma ne la lan mooy position am tey. par rapport à ce qui se passe. voilà xam nga lan mooy position am. merci tax bàyyiwul xam nga lan mooy position am. Mm-hmm. déjà xam nga président de la seeni ci RPG la bokk. Mm-hmm. ñun sunu résultat yëpp ñuy remonté. Hmm. PV bi bu ñu leen ko joxee dañoo dàq sunu commissaire de l'opposition dañ leen di dàq boole ñu leen si dara kon bu fekkee ne ay démission am na voici la preuve mais tey dama rus xam nga lu tax ma rus. man si mais t'as pas répondu a ma question mais man bàyyi der mooy kii mais sama hmm. question bi répondre ko de. dama ne vice président bi lu mu wax. loolu laa wax. dama laajte rek vice président li mu wax mooy li ma la wax nii. c'est parce que moom indi na document joxoon na ko président bi pour ñu évaluer ko président bi bañ na ko donc lu moom mënul gëm nii ñoom résultat bi ñuy wax loolu moo fi nekk. c'est ça la réalité mais tey dama rus. Hmm. mun nga ma bàyyi tuuti rek dama rus xam nga lu tax ne dama rus. Hmm. su ma jàkkaarloo ak euh, Condé tey jii nii moom mu ni Guinéen la et puis il a <laughs> l'amour du pays mais dama rus. gis nga nit kii bul xool sa intérêt nga xool intérêt un vieillard yoo xamante ni presque c'est à l'âge de cent ans moom li mu bañ dégg naa leen ko wax te ngeen xam ko il est de la Guinée je suis de la Guinée il connaît bien la Guinée je connais très bien la Guinée gis nga eh, Alpha Condé génération Sékou Touré la il a vécu avec Sékou Touré où est Sékou Touré aujourd'hui il est mort Sékou Touré dem mu ñëw Lansana Conté Lansana Conté dee na dem na baa Ba Mamadou ñëw Ba Mamadou dee na dem na Sidadio jàll ñëw Sidadio Diallo dee na dem na Conté ah dee na. yaa cinq nga tollagum. yaa cinq laa tollagum Jean Marie Doré ñëw na <laughs> combattre na ak moom Jean Marie Doré dee na il reste que Alpha Condé mais yéen yéen kii bu ma taxawee bu taxawee tey mu ni Alpha Condé bu fekkente ni ànd naa ak yow. pour ngeen dox dina dem bàyyi la mais dama ruus xam nga tama tax ma ruus Alpha Condé à son dernier meeting meeting bu mujjee def mais il a failli tombe les images sont là nga Alpha Condé moo ko moo moo ko yàq si Guinée Alpha Condé ne dit jamais la vérité Alpha Condé c'est un tueur c'est un rebelle en 98 Alpha Condé on lui a attrapé à la frontière de Lola vers la Côte d'Ivoire xam nga bi ñu ko jàppee dafa muur woon benn mbalaan bu weex yoro benn ay téléphone satellitaire préparé mercenaires yi ne su ma génnee rek xam nga boo boo génnee rek boo nee acca rek gars yi dugg mais yàlla def nii le général le feu général a Conté seen seen noom dafay yàgg dafay yàgg si si si militaire moo ko interpellé ci lañ ko jàpp tëj ko biñ ko tëjee si la Tiken Jah Fakoly libéré libéré Alpha Condé kon nag tey jii nii kooku bu ñëwee tey amul lu mu fayee Guinéen lu dul ay rey Guinéen gis nga démb ak tey jii nii presque su ma mën na wax ils ont tué plus de cinquante personnes rey nañu benn jigéen boo xamante ni à l'âge de trois cinq ans trois ans sept ans xamuñu si dara mënuñu saa wax avec ça kii taxaw fi tey mu ni amul kenn ku muy défendre lu dul Alpha Condé j'ai honte je suis jeune j'ai honte xam nga man maa gën a tuuti si bureau fédéral Sénégal man maa gën a tuuti xam nga xam nga un peu de respect xam nga moom xam nga sellu di rey nit daf la déglu déglu ko xam nga xam nga écouter il faut euh, ah, man ñëw ma fii pour bavarder je suis je suis je suis jeune ñëw ma fii pour bavarder dama ñëw yokk sama xam-xam ak lu tuuti li ma yebal ma ñëw wax leen ko loolu moom ma fi indi mais ñëw ma fii pour discuter bu fekkee ni moom am na jot boobu man awma jot boobu noonu gis nga bi muy wax fii élection préparation élection bi lan moo tax ñun ñoo daxal bopp mais c'est archi faux c'est pas vrai xam nga lu tax ma ne c'est archi fii fii lañ fekk ñun ñëpp fii lañ xam nga ñii bu ñuy organiser élection présidentielle comme euh, Charles Charles lu mu wax sànq rek xam nga c'est entre le ministère de l'intérieur des affaires étrangères et le ministère des affaires étrangères n'est-ce pas léegi nag bi ko defee xam nga dafa am papier yoo xamante dafay jógee ministère de l'intérieur de la Guinée mu ñëw directement fii kon nag bu ñëwee normalement ambassade war a ko retardé da ko war a transmettre direct moom tam dafa war a yónnee ministère de l'intérieur bi nag ki Sénégal fii comme sax kooku mooy mën a xam nag ba xam dinañ ñu ma may autorisation wala déet mais il pas fait cela dafa jël courrier bi mu ñëwee jox leen ko dafa jël courrier bi caché ko tey ko parce que il a bien voulu liquider guinéen yi nekk fii pour s'exprimer donc dafa leen bëgg a dax mu téye courrier bi bay bal ba buñ ne suba la enrôlement guinéen yi ñëpp ñoo ambassade pour s'enrôler guinéen yi ñëw coow li commencé ba rek ministère na mais qu'est-ce qui se passe mais lii nu mu doon eh, écoutez arrêtez-moi tout ça ci la ñuy arrêté ñu ne ma jusqu'à nouvel ordre. ci hmm. la ñuy arrêté affaire enrôlement bi. ba ñoom ñu liggéenti si dossier boobu mais kii bu taxawee tey mi cest à muy wax c'est celui lu est ci c'est celui qui est ça mais j'ai honte aujourd'hui j'ai honte aujourd'hui gis nga Alpha Condé Alpha Condé lu mu bañul duñ ko bañ. Hmm. xoolal Guinée day métti rek mais Alpha Condé il va dinañu abal foofu. Hmm. parce que li muy def yëpp li muy def yëpp c'est de dictature. li ngay wax ni jur jàmm de euh, ah. si. waaw li muy wax ni warul jur.